maa leen ñëw Boubacar Sy ɓe mbiyamo Mbay si kanko hande kanko jooɗaniɗo euh, a tijane te vraiment o jaabama ɗum firti aussi que pop ko gotum yimɓeɓe pop eneni e ko laawol dewal ngol ngol tan enen fof ken ɓennoɓe sen jeehino ɗo goppaten laawol ngol ɗum waɗi kala tawaɗo allah waɗi tawaɗa waten ko moƴƴi waten kono jekka andam waten aussi kono rewi allah ɗum tan min paami hen monsieur maire ko mbattintomi o en tant que gtv en tant que aɗa woni maire makkinan nimsat gtv 72 ene woni e nder gueeji ma holko woni hen euh, miijo ma e darde ma joni joni di sant yàlla di wax alhamdulilahi rabil alamin bi ñu yàlla boolee ci bis bu mel ni ñu teewee ko di bisub lislaam donc ñu fi bokk ci délégation bi nga xamante ni monsieur le maire Aliou Sall euh, may Ablaye Mbaye laa tudd nekk adjoint au maire euh, bokk ci délégation monsieur le maire Aliou Sall donc yàlla boole ñu ci niñ ko gisee daal mooy rafet na ci jullit rafet na ci gis-gis nekk na luy dundal lislaam nekk na luy dundal diine nekk na luy tàppe xol yi nekk na tamit luy indi jàmm ci réew mi parce que lii ñu fiy wax muy tudd yàlla foog naa ne dara gënu koo màgg ci kaw suuf te nit lu mu mën a def lu dul tudd yàlla mooy sant suñu borom màggal ko sàbbaal ko loolu dafa am solo ci ab jullit loolu nag bu amee fii ci géejawaay dañ ci sant yàlla parce que mënoon naa amee feneen mais bu amee ci département Guédiawaye bii nga xamante ni département l'islam la département julli la te suñu maire yàlla def ko muy taalibe ci kër gi loolu ñun dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax jër ngeen jëf. Euh, lii daf ñu war a delloo rek ci yàlla parce nit moom. dund ak dee moo ànd te nitu diine yi loolu lañuy ñuy jàngal parce que lépp li ñuy def ci àdduna pour suñu ëllëg la te ëllëg boobu faw ñu jaar ci dee kon nag soo nekkee julli dëgg-dëgg dee ak lu mu metti metti di nga ko muñ jàngatee ko jàngat bu rafet parce que al amin ko yàlla yërëm yéexañ yàlla tas leeram ci ñun ñii xam nañ ni dund na te dundam lépp ci rafet moo tax ñu ne woon al kuy defar la kuy jokkale la te it kuy jàngale la te kuy yeete la kon nag tey su ko fi rakkam wuutoo euh, mooy li yàlla wax rek képp ku ma sàkk dina am bés nga dëddu àdduna wante maa ngi lay xaar feneen delloo la jëf yëpp yi nga def kon nag lii daje ci géejawaay rek kii euh, wuutu Serigne Al Amin kon xalif général bi fi toog Serigne Mbaye Sy kontaan ci moom te lii dal ci géejawaay macha allah te ñuy wax ni bés bi moom loo fi ñaan muy lu baax yàlla defal la ko di ñaanal président Macky di ñaanal maire de la ville Aliou Sall di ñaanal maire gox bi yëpp cinq communes yi boole ci sama bopp ak ci jëpp ñu yeewoo Géejawaay jëpp ñu Sénégal parce que xoolee tey rek représentation bi di nga xam ni état bi taxaw na fi parce que Amadou Ba mu ngi fi toog di ministre góor gi ndong mu ngi fi toog di ministre ñoo ñëpp ñëw fi ci turu président de la république ñu fekk fi maire pikin Cimbo euh, fekk fi ancien ministre la culture su Ablaye Wade wanañ daal ñun ñëpp benn lañu dégg li ñu soxal mooy gox bi yàlla moo ñu boole te yàlla na rafetal yëpp daal bismillaahi rahmaani rahim dañuy sant yàlla Euh, li nga ma laaj damay sawar ci tontu ci ndaxte doomu jullit la xadaratu jumaa ci mbooloo mu toll nii kilifa diine yu toll nii ñëw jiite ko Pape Malick si ñëw toog ak njabootu Seydi El Hadji Malick yëpp ñëw toog teewee kilifa aada yi délégation président de la république ministre de l'économie et des finances ko ñëw toog lii ku ko xool di doomu jullit di dégg lii ngay dégg sa yaram day daw da ngay xam ni ci réewu jullit nga nekk ci dëkku jullit nga nekk te alhamdulilahi rabbil alamin suñu diine ji du dellu ginnaaw mukk ci àdduna day dund yokk rek waaye lii moom li muy tekki dafa rëy mun nañ ne ñaar fukki at ci ginnaaw wala fanweeri at ci ginnaaw kenn xalaatul woon lu mel nii dañu ko mën a dajale ci mbooloo toog di wax ci yàlla kon lii boo amee alhamdulilahi rabil alamin kon xam nañ ne diine lislaam ci biir senegal ca kanam la jëm du dellu ginnaaw mukk fii ak ñi nga xamante ne ñoo ko fi sant téye ko ñu ngi fi day yokk di dem ci kanam waaye du dellu ginnaaw ma am ci mbégte gu rëy a rëy xadara bi Pikine la juddoo sëñ Abdou Fatah Sarr mi nga xamante ne bi moom moom moo sos lii mu ngi dëkk fii CFA ci Pikine fa la commencé woon lii ren ji mooy cinquième édition bi pour dimension bi nga xamee ne al wax na nañ ko ko jox gémmiñam barkeel macha allah ñu koy ñaanal yàlla fu mu nekk yàlla na ko gënal fiyam li mu ci waxoon tax ñu jël ko Fata dëkk fii ci CFA mu jage loolu stade Amadou Barry mu ne nañ ko fi waaye xam nga Guédiawaye ak Pikine benn la jóge Pikine ñëw Guédiawaye wala jóge Guédiawaye dem Pikine benn la ci ñun banlieue bi kese la kon su ñëwee fi teg ko fi ba tey jii ñu def ko fi daaw defaat ko fi ren dañuy ñaan yàlla rek yàlla dañu may gudd fan ak wér ba at a nañu koy fekkee fi mën di teewee jërëjëf jërëjëf monsieur le maire ñu ngi lay ziar seen loxo ba ñu may lu tey waxtu yi ñëpp nga xam ni ay waxtu du ñu def lu dul tudd yàlla nàmm xol yi delloo suñu bopp suñu borom xam ni lépp ci moom la jóge ci lépp ci moom lay dellu soo xoolee ñi fi toog tey ci mbooloo mi wala ci kilifa yi fi toog comme ni ko DG waxee léegi ah nga gis fi ministre ak ñoom député opposition ak ñëpp ànd toog fii ak maire Pikine ak yëpp nga xam ni dëgg rek moo moo moo am solo lii dëgg la eh, ñu rafetlu bu baax di ñaanal yàlla ki nga xam ni moom moo dénk Fata liggéey bu nga xam ni mucc ndigalu kilifa la gis nañu ne at mu jot day gën a yokk te lii nag waxtu wi Sénégal ñu toog fii ay junni junni di tudd yàlla ci fii ci géejawaay ñun de war dañoo sant yàlla ndax wax yi ñun dañoo ñoo ko am lii ci Sénégal sant yàlla ñun waa géejawaay ñaan yàlla nag jàpp ci nag ba mu dëgër lawal ko ba nga xam ne day lawal lawal ba nit ñu ñuy xàcc stade yi bay dem ci mbedd yi ndax su ñëpp génnee téye yàlla wax ci defe naa ne xool dañu ànd defar réew mi loolu baax di ko sant bu baax di leen sant. jërëjëf monsieur le ministre à la première fois ñu ñëw fii fekkale ci xadaratu juma bi barke Demba Njaay ci caaro yi bi ñuy tëj sunu burdu bi man mi maa doon jàng burdu bi yaa ngi toog fa tabarakallahu ànd ak jamono kon li ñu wax ministre de la jeunesse doxe nga ko waxe nga ndax fu ndaw ñi taxawee yaa ngi taxaw fa tabarakallahu tey nag fekkuñu le ci jeunesse donte ka fekk nañ le ci ñu ngi la fekk ci xadaratul juma bi bi nga xam ni Serigne Abdoul Aziz moo ko fi bàyyi woon fa tabarakallahu bàyyi ko njaboot gu jekk ji rek ci toogaay bu jekk bii nga toog jàkkaarloog ndaw yi mu wóor ma ni ndaw ñi baax rek nga bëgg ci ñoom tey yàlla may la saas bi nga jàkkaarloog ñoom ban yëg-yëg nga ci am. Ah, yëg-yëg bi moom xam nga ne euh, wax dëgg yàlla mën naa feeñ ci sama kanam ci samay bët ci mbégte waaye am assurance. ci fi nga xamante ne fa lañ jëm nag xoolal toogaay bi ni mu rafetee depuis si suba ba léegi mag ak ndaw góor ak jigéen ñoom ñëpp ñëw toog ci suuf toog fi te tànk jeexul doo fi gis kenn ku jóg dem ñibbi diine rek ku mën diine nag ba mu ko mënee dafa fekk ñu am ay mag ñu baax yoo xamante ne ñoo ko téye woon démb ku mel ni Serigne Abdoul Aziz Lamine na ko yal na yàlla yokk leeram bàyyi ñu lii nga xamante ne tey moom la ñuy def ñëw renforcer ko taxawaay ko donc man gëm naa ne ñii ñoo war a wax ci turi population bi ñii nga xamante ne tey ñoo mën a dajale lu toll nii parfois sax ma dégg suñu mbokk sama mbokk politiciens yi ñu leen ñuy woo suñu kilifa diine yi ne dañoo war a wax ci problème yi politique li kilifa diine yi di wax mu ngi nii ñu jàkkaarloon kilifa diine yi du ñu jóg di wax ak askan askan bi di wax ak ñoom guddi ak bëccëg suba ak ngoon lii lu ko mën a firndeel niñ def ba yar nit ñi ci lii mu taaru lool ñu mën leen jëmale leen ci yàlla jëmale leen ci dëgg jëmale leen ci ay jikko yu rafet li tax nag mbégte bi rey lool ci sama teewaay fii bu weesoo lii nga xamante ne tey mooy diine ji ñu bokk ko ñun ñëpp mooy lii nga xamante ne tey euh, président de la république son excellence Macky Sall da koo yëkkati dénkuñu ko ñu ndaw ndawi réew mi ma ñëw ci tant bi it ñëw ci stade fekk fi ndaw ñee fi ëpp kon nag am na loo xamante ne tey am nañ ko comme redevabilité ci ñii nga xamante ne mooy suñuy kilifa diine président daf ñoo dénk lépp lu jëm ci tabaxaat jikko defaraat de telle sorte que Sénégal bi nga xamante ne tey ay jikko moo nekkoon référence bi te mu commencé sooxe lool ci sunum réew président ne ndaw ñi rek laa ci yaakaar ñoom rek laa ci yaa laa ci wóolu ma dënk leen pour ñu defaraat jikko yi askan bi bu Sénégal loolu nag buñ bu ko président de la République di def day ñëw rek and ak kilifa diine yi que tracé nañ yoon bi kon ñun bu ñu ñëwee fii am na loo xamante ne mën nañ ko ci jàngat mooy ci ban yoon nan la sunu kilifa diine yi tëralee ba nit ñi bu ñu ñëwee ci béréb yi mel nii nga gis fi yar ak teggin loolu nag lañuy jëlaat boo méngale kook sunu aada fexe ba jox ko ndaw yi réew mi yëpp ñu mun koo tasaare ci askan yi Sénégal bi yëpp may sant ma leen di sant bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne yéen eh, may ñaan yàlla yàlla taxaw taxaw leen wéral seeni cër wéral seen baat. ba ngeen mën a taxaw diine ji fi nga xamante ne foofu ngeen koy taxaw yéen ñii ñëpp ci ndaw ñi ngeen bokk kon lii mooy visage yi ndaw yi réew mi kon bugguma tey mënuma d'accord ak ñi nga xamante ne dañuy jël ndaw ñi di leen di méngaleeg ñoo xamante ne dañuy ñaxtu wala boog ñu tayal wala ci leneen lii mooy visage yi ndaw yi réew mi kon nag dama bëgg képp kuy waxati jëmale ko ci ndaw yi na nga ci boole respect boo xamante ne war nga ko mën a jox ndaw yi réew mi parce que jàpp naa ne lépp lu fi bouger ci wàllum développement ndaw yi réew mi ñoom ñoo nekk ci kanam te ñoom ñoo nekk ci ginnaaw. jërëjëf Pape Gorgui ñu ngi lay ziyaara bu baax ñaan yàlla guddal sa fan man nag émission. koo xamante ne dafay identifier ak ñoom ñu jël xam ne kooku mu ngi dund les mêmes problèmes bi nga xamante ne moom la ndaw yi doon dund tey amul benn jeune buy ñëw di ma expliquer lan mooy jafe-jafe ndaw dama ko dund xam ko te nekk ci ba léegi kon bu boobaa ni ma am mën a amee capacité de compréhension ba mën a anticiper ci li nga xamante ne ay ay ay ay solution lay doon ci jafe-jafe ndaw ñi jàpp naa ne loolu rek a tax président de la république jël ndombol tànk yi jël ci ndaw ñi dénku ko ko waaye it considération bi raw na sax loolu nee naa la kenn mënta tabax réew te laluwul ci ay jikko ay jikko yu rafet président bu demee nag ba tànn ne pour defaraat suñu jikkoy rafet yooyu ndaw ñi rek ñoo ma ci doy considération fa la yem kon jàpp naa ne ñun ndaw ñi am na lu ñu warloog président de la république warlu koog suñu kilifa diine yi mooy sas boobu nga xamante ne dañ ñu ko sas nañ fexe ba présenté wu en modèle pour mën ëllëg attan lii nga xamante ne tey wala mérité lii nga xamante ne dañ ñu koo teg kon nag loolu rek laa ci amoon koy comme comme commentaire yéen i tamit ngeen lu ci nag bu baax a baax. di Seydi Ahmed Sarr te Ahmed Sarr ku ko dégg di borom Louga. jumaa bi bismillah. macha allah balɗe e moƴƴere battane barke mouhammad sallah sallam tabarikallahu mam ndiaye dabba arno wondude ceerno salif bari addude émission mam ndiaye biteɗo hilas waɗa to e gtv tabarikallahu en jii on wonde sérigne magnang sek tabarikallahu musidɗo men sehil men uh, guiɗo men tabarikallahu eɗen jiimo omo andi eɗen gandi o jeeya koye ɓesgu sérigne babacar sy kadi koye yiɗɓe sérigne babacar sy o jeeya ɗum noon hatmul qouran neɗɗo janggue so paari noon dokken seydil haji malik mo sérigne babacar sy ɓurɗo andirede thiat ɗum noon noon ko ɗo wonno e gtv 72 wassalamu aleykum wa rahmatullah